faraidul wudu'i faratay njàpp sab'un juróom ñaari farata la nga téye sa baaraam ñu ne lan mooy farata farata mooy loo xam ne ci njàpp soo ko bàyyee njàpp la yàqu na loolu mooy farat ci njàpp mooy loo xam ne soo ko defut njàpp la yàqu na loolu mooy farata ci njàpp dafa am sab'un juróom-ñaar yoo xam ne soo dee jàpp ci defoo leen sa njàpp la du wér moo xam njàpp lu mën a doon nag soo ko defut rek njàpp la du wér ba ca njëkk an niyatu mooy yéene kuy jàpp da ngay yéene ci sa xol ne ne ci sa xol fas naa yéene jàpp ndax mën a def ci sama njàpp lii lépp lu ñuy defee njàpp su ko defee nga ci julli da nga ci alxuraan def ca yeneen def ca yeneen ndax yéene ja day yaatoo yépp saa booy jàpp da ngay fas yéene jàpp ndax yëkkatim toj ba mën a jaamu yàlla ci lépp jépp jaamu yàlla goo xam ne njàppay tax ñu mën koo def yéene nag lu am solo la ci jëf yi ndax yéene mooy xàjjale aada ak ibaada ak niyatu yéene mooy xàjjale aada ak ibaada su nekk soo ragoon say tànk wala boog soo raxasu woon galax ndiku sarax ndiku fiiru sëlmu ba mu àgg te yéene woo mooy dangaa jàngu dangaa jàngu rek waaye jàppoo soo ci yéenee njàpp nag soo raggee yooyu léegi dangaa jàpp mu ngi mel ni ku dem ca wana wa di sangu muy yéene yéenewul xanaa ragg aw yaramam rek su boobaa dafa raggu amaa su yéenee sangu janaba su boobaa dafa sangu gis nga kon yéene mooy xàjjale aada ak ibaada gis nga nit day dem ba màkk di wër kaaba ga wër gëm koy wër yéene jëm cay am loolay tax doj woowe muy wër loola nekk ibaada waaye bu ci yéene amul wëru doj moom daanaka da daal di doy waar lool kon faraidul wudu'i faratay njàpp sab'un juróom ñaari farata la nga bank sa baaram bi ci njëkk an niyatu mooy yéene yéene nag xol moo koy wax waaye jarul làmmiñ di ko tudd naan ma fas fi yéenee jàpp loolu du ko jar xol rek mooy wax mu yéene bi loolu mooy farata bu njëkk bi kon kuy jàpp ku ne soo yéenewul njàpp la du wér ndax dangaa bàyyi ab farata kon yéene moo ci jiitu wa xaslul wajhi ak sëlmu sëlmu arab day wax xaslul wajhi raxas xar kanam raxas xar kanam nag ci olof moom mooy sëlmu baat bi moo ci la gàtte ndax olof dafa yaatu tabarkàlla te dafa yeewu sëlmu sëlmu farate bi sa baaraamu dey bi day laal sa nopp ndeyjoor bi nga sëlëm ko ca wàll gële ba sa baaraamu sànq lañ bi laal sa nopp boobee laal sa kawar yu jëbi laal sa ron sikkim bi ak xóot-xóoti bët yi loolu mooy sëlmu bu fekkee da ngaa sëlmu te laalul ca nopp yeeg nopp bee sëlmu ba matut boo laalul kawar yi ci jëbi sëlmu bi matut boo laalul rom sikkim bi sëlmu bi matut sëlmu kon mooy xar kanam bi li amul karaw lépp ci bu doon góor dañ ko war a raxas loolu mooy sëlmu moo tax ginnaaw sëlmu farata la yow jigéen ji nga xam ne dangay def ci say bët ay mbir xaw ma rosa la xaw ma wala di ko def ci say lex wala di ko def ci say tuñ sëlëm yooyee ci njàpp bu fekkee ne danga koy bañ a yàq moo lay tee sëlmu yàlla da lay daal di boole ci ñi nga xam ne gëmuñu ko ndax li nit di amee ci njàpp moo gën li muy amee ci ay rosaat ay xaw ma nan lañ ko tuddee tabarkàlla tur ya bari na maanaam li jigéen ñi diw seen tuñ yi ak di ko diw seen lex yi ak seen bët yi li nit di amee ci njàpp moo gën la muy amee ca loolee ndax yooyee boo ko diwee ci saxar kanam beeg bët yeeg gémmiñ gi la nga cay amee du weesu diw de toilette am bi rafet na wala lalal naa la te sa toilette bi rafet naa lalal naa la ñaari am na ciy jayaate dong moo tax am naa li nga ciy amee nag ci boo ko sëlmee suñu borom tabaaraka wa taala dogal na yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mooy yàlla gi nga defoon ci saxaar kanam bi booy sëlmu ndox góor ngay mujj a toq ca lay jeexe waaye itmaamul wudui inda al makaarih yonent bi moo ko waxoon sallallahu alayhi wa sallam day toll jamono yooyu nit ñi dañ sawar ci njàpp ba ca gën a doy waar mooy bu jigéen ñi yendoo cim xew bu yendoo cim xew moom lu nekk tabarkàlla mën nañ ko def ba mu des nekk di jàpp ko def yëf ndax dañuy jàpp ne léegi day yàq seen toilette waaye ku xamoon li ne ci njàpp lu sa toilette rafet rafet rafet su julli jotee nga fab am ndox raxas ca ndax toilette boobu yi lex yooyu bët yooyu loo ko defar defar defar dana am benn bis ay sax ñoo ci añ réer ci ndékki ci lex ya jeex lex yi ñuy defar nag muy nooy ngir sax waaye waaye mu nekk na ko sëlëm jekk-jekkal ko tabarkàlla jàpp kon ñaareelu farata bi daal mooy xaslul wajhi sëlmu wa ñetteelu farata bi xaslul yadayni mooy raxas ñaari loxo ilal mirfaqayni ba ci ñaari conc tàmbalee ca cat baaram ya di raxas di raxas di raxas ba conc ya njëkke ndeyjoor bi teg ca càmmoñ ba loolu mooy ña ñetteelu farata ji ci njàpp loolu tamit loxo bi na set wecc nañu ko raxas li tàmbalee ci baaraam yi ba ca dojo ba ca conc ba waaye ki nga xam ne mooy sëlmu tey raxas ay loxoom ba ci conc ya na fexe ba der bi nekkoon ci yaramam te yàlla bindee ko ko der boobee ne fa ndax wut ay produit diw ko ci der bi ba der boobee dañ beneen der nekk fi nga di ci jàpp wóoru dafa am der bu fi nekkoon boo ci defee ay produit yu koy xeesal day dindi der bi fi nekkoon fulli ko beneen der nekk der boobu fi nekk nag nga di ci jàpp wuute naag der ba fi nekkoon nga di ci jàpp yooyu yu am solo la ci sew-sew yooyu su ko defee moom miy raxas ay loxoom ba ci concoom bu fekkee émaay daa ne ci weyi su ko dindiwul njàpp la du wér émaay yi na ci weyi su ko dindiwul njàpp la du wér bu fekkee daa tocc mi ko woon ba tocc mi ko ba niinal loxo ya nga xam ne bu ci defee ndox mi ca kaw rek la ñaay ba di nekk su boobaay njàpp la du wér izalatu lmaanii chartun min shuruti l wudui dindi lii tee ndox mi àgg ci loxo yi sart la buy wéral am njàpp wa xaslul yadayni ila al mirfaqayn raxas ñaari loxo ba ca ñaari tonc loolu mooy ñetteelu farata bi wa masxu rasi ak masa bopp ñeenteelu farata bi mooy masa bopp masxu moom mooy da ngay def ndox ci sa loxo ñaari loxo yëpp wiccax ndox ma daal di fab ñaari loxo yi teg ci bopp bi tàmbalee ko ci jëbi masa ko ba ca ndong ga delloo siwaat ko boo dee jigéen ju meesu masaa ba du wér fekkee jigéen la ju meesu yokk yeneen kawar ci kawaram masaa ba du wér fokk su naree jàpp day dindi mees ma wacc fële door a masaa waaye masaa ci kaw mees du wér masaa ci kaw musóor musóoru tagalu yi du wér kon masaa farata la ki koy def na fexe ba bopp bi bu ci dara nekk mu masaa kawar ga cat yàq yooyu waaye masaa ci kaw ay létt létt yi yuñ yokk ca kawar ga du sa kawar bopp loolee du wér muawiya ibn abi sufyaan dafa mas ñëw madina mu gis fa ay jigéen ñu yokk seeni kawar mu ne waaw ana borom xam-xami madina ñu ne ñoo ngi nii mu ne xanaa lii yëgu leen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon tere muy jigéen ñi ni ñu yokk seen karaw yi borom xam-xam yi nag dañ cee noppi lool tabarkalla noppi gi sax dafa ëpp ndax lu ñuy tere lu nekk koo gis ci kuñ koy tere rek war nga ko ne lii dañ koy tere te am na ci ñoom ñàkk xam moo leen ca dugal ne buñ xamoon dañ koy tere ñu bàyyi ko tabarkalla wa xaslu rijlayni juróomeelu farata bi mooy ragg ñaari tànk ilal kaabayni ba ci ñaari dojor xaslu rijlayni ilal kaabayni ragg ñaari tànk ba ci ñaari dojor ñaari dojor mooy sa tànku ndeyjoor bi ñaari yax yi ko siq ci fi ngay sol dàll ak sa tànku càmmoñ bi ñaari yax yi ko siq fi ngay sol dàll maanaam ca suuf am na fa ñaari yax yoo xam ne bii ci ndeyjoor nekk bii càmmoñ loolu lañu tuddee dojor dojor ñaari dojor yooyu booy jàpp ca ngay àgg des na ko tiim nag tuuti des na ko tiim bu xaw a kawe tabarkàlla ndax fu njàpp li yem fala baaxaay ga di yem wala boog fala rafetaay ba di yem bu yomul xiyaame moo tax abu hurairata léeg-léeg daana ko guddal lool ba mu kawee ba weesu ko tuuti juróom benneel bi waddalku ak jonj jonj mooy bi ngay def ndox mi ci sa cër yi nga ciy rombale sa sa sa loxo ngay rombale sa loxo ci cër yi di ko bomb ndax muy muy set waaye def ci ndox mi dong du doy loolu mooy bomb wal fawru ak gaaw gaaw mooy doo raxas lii bàyyi toog waxtaan ba mu neex la nga raxas la ca def wala nga raxas bàyyi fa la nga doon def dem doxi jëndi tàngal dellu siwaat raxasaat déedéet al fawru mooy da ngay def lii noppi ca def lii noppi ca def lii noppi ca def lii ba njàpp la jeex bu raxasoo ba noppi rek galax ndikul boo galax ndikoo ba noppi rek sarax ndikul su sarax ndiku bi noppee rek fiirul noonu lañ koy defe yii mooy faratay njàpp nga xam ne boo leen bàyyi boo ci bàyyee benn sa njàpp du wér alal mazhabil maliki radiallahu anhu fi kitaab al axdari faraidul wudui faratay njàpp sab'un juróom-ñaari farata la an niyatu yéene wa xaslul wajhi ak sëlmu wa xaslul yadayni ak ragg ñaari loxo ilal mirfaqayni ba ci ñaari coñc wa masul rasi ak masaab bopp wa xaslul rijlayni ak ragg ñaari tànk ilal kaabayni ba ci ñaari dojor waddal ku ak bomb wal fawru ak gaaw faraidul wudui faratay njàpp sab'un juróom-ñaari farata la an niyatu yéene wa xaslul wajhi ak sëlmu wa xaslul yadayni ak ragg ñaari tànk ñaari loxo ilal mirfaqayni ba ci ñaari conc wa masul rasi ak masa bopp wa xaslu rijlayni ak ragg ñaari tànk ilal kaabayni ba ci ñaar dojër ya wal dalku ak bomb wal fawru ak gaaw yooyu mooy faratay njàpp wa sunanuhu sunna ya sunnay njàpp ba ca njëkk xaslul yadayni mooy raxas ñaari loxo ilal kuucayni ba ci tikku jara yi inda shuruuci ca tàmbali ga inda shuruuci ca tàmbali ga wa sunanuhu sunnay njàpp lan mooy sunna sunna ci njàpp mooy loo xam ne soo ko deful du yàq sa njàpp soo ko defee gën lekku ko deful soo ci bàyyee ñett ak ñeent nag te tey ko loolu day tekki ñàkkee teggin njàngalem sallallahu alayhi wa sallam moo tax kenn du ko def wa sunanuhu sunna ya sunna njàpp xaslul yadayni mooy raxas ñaari loxo ilal kuwayni ba ci ñaari tëkku jare inda shuruuci ca tàmbali ga muy benn wal madmadatu ak gallax ndiku muy ñaar gallax ndiku mooy def ndox ci sa loxo def ko ci sa gémmiñ dugal sa baaraam ci biir xojo xojo ko ci ndeyjoor xojo xojo ko ci càmmoñ yeb li defaat loxo ndox ci sa loxo buux ko yëngal ko sa baaraam ci ndeyjoor yëngal ko sa baaraam càmmoñ yeb li defaat ndox ci sa loxo guux ko joñ ci sa ndeyjoor joñ sa càmmoñ yeb li loolu mooy almadmadatu gallax ndiku mooy ñaareel bi wal istinshaaku ak saraxndiku mooy ñetteel bi saraxndiku mooy da ngay def ndox ci sa loxo teg ko ci sa bakkan daal di koy xëcc ndox mi dugg ci sa bakkan daal di jàll ba sarax sa sarax la ba ngay bëgg a tissooli di yëg wextaan wi ci sa ñaari bën bëni bakkan yi ci kaw foofu yonent bi day wax ne kuy jàpp muy wax waaja mu ne ko baalix fil istinshaaq na nga xëcc bu baax sarax ndiku ba ndax seytaane dafay fanaan ci seen paxi bakkan yi léeg-léeg soo soo jàppee nag sarax ndiku ko ba mu laal ko ndox mi laal ko dafay tëb daw génn amaa su fekkee da nga koy fiix fiix ci cat bakkan nii rek loolu du la tàggale ak seytaane mukk moo tax istinshaaq sarax ndiku dafa war a jot mooy def ndox ci sa loxo teg sa bakkan xëcc ko loolu mooy ña ñetteel bi ci sunna yi wala istinsaaru ak fiiru mooy ñeenteel bi fiiru mooy ndox moomu nga salaxndiku woon nga ñandee nga ñandeeku waat ko ndax mu génn ngeen baal ma nga ñandeeku waat ko ndax mu génn mooy istinsaar fiiru dangaa salaxndiku da ngay fiiru ndax ndox mi génnaat warad du mas irra si ak delloo si masaa bopp bi kooku mooy juróomeel bi delloo si masaa bopp mooy bi ngay masaa di dem ci ginnaaw loolu sunna la woon farata la woon waaye bi nga koy delloo si sunna la moo tax booy jàpp da ngay dem rek daal delloo si def nga farata def nga sunna waraddu ak delloo si mas xirra si masaa bopp bi loolu mooy juróomeelu sunna ci sunnay njàpp ku jàpp ku ne na ko def ndax njàppam gën a mat wa masxul uznayni ak masaa ñaari nopp kooku mooy juróom benneel bi masaa ñaari nopp sa ñaari nopp yi au lieu nga sol ndox ci biir da ngay tooyal say loxo masaa masaaye ko nopp yi ci biir ak ci biti ker nopp geeg biir nopp bi nga masaa leen masaa bokkut ak ragg ragg mooy da nga ciy def ndox ragg ko masaa nag mooy da ngay tooyal sa loxo wacc ndox ma daal di ko cay raay loolu mooy masaa wa tajdiidul maai lahuma ak beesal ndox mi wa tajdidul maay ak beesal ndox mi lahuma ngir ñoom ñaari nopp yi loolu sunna la lan mooy beesal ndox mi mooy bi nga masaaye ba noppi nga defaat ndox ci sa loxo wistan ko door koo masaaye say nopp loolu mooy beesal ndox ndax dangaa am ndox moo masaaye sa bopp bi bi nga masaaye ba noppi am na ndox mu ci des tooyaay yu tuuti mënoon nga caa masaaye say nopp waaye lay sunna mooy nga defaat ndox ci say loxo beneen yoon wiccax ndox moomee masaaye ko say nopp loolu mooy wa tajdiidul maai lahuma loolu mooy juróom-benneel bi wa tartiibu ak toftale baynal faraidi diggante farata ya toftale diggante farata yi loolu nee na ci sunna yi la bokk moo di toftale diggante farata mooy farata bu ne nga ba jiitu ngay def door caa teg ba ca tege waaye doo benn farata yi ñëw raxas say tànk daa di door a masaa sa bopp mu ne déedéet da ngay tartiib baynal faraay di diggante farata yi kon loolu mooy sunna yi nga xam ne mooy sunna yi jàpp suñu boroom tabaraka wa taala mi ñu may ba ñu toog di jokkoo ci darsu bi war na jar na sant lool alhamdulillah